ñi nga xam ñoom lañ koy si saal bi ñoom ñoo am combat yàlla defal leen ndam ci dimanche passé bëri nga ak Petit Lo daan ko jël bi nekk combat bu amoon loolu la war la coow li bari li waaw sant yàlla rek ama ñaari xale moom bu ñu bëri daa war di neex wax dëgg yàlla Petit Lo champion la ko lu mu doon waaw waaw ndax xale la te muy si làmb def na boole woon ñu bëri man daal waaw di xool ne sama kanam la bu ñu loolu coow la la coow lu bëri woon na combat bi sëriñ sax maanaam dugg sama waa ji sax tubaab ci wax ci combat bi lan la coow li ah non am na ay waxu jàmbur moom bugguma def di si wax quoi. waxu jàmbur mooy lan. non mooy waxu sëriñ ñi ngay wax nii moom xam nga rek bugguma sax di si waxu sëriñ yooyu waaw ndax moom li ne sama kanam moom ñor waaw parce que loolu dëgg la tool yi bëri woon na ndax la làmb xale ak papam xam nga du si wax noonu xam nga gën a yokk làmb ji ampleur quoi waaw mun naa loolu moo gën a yokk làmb ji ampleur daa moo li Modou Lo wax daan des na pikin euh, kii soo xam waaw waaw xam nga loolu tam bokk na si li jaay làmb ji quoi ndax xam am na ñoo xamante ni maanaam ay kilifa lañ ci làmb comme ay Modou suñu waxee gars yi dañuy bàyyi xel dañuy déglu waaw wax nag moo tax ñu bëri bàyyi xel làmb ji waaw te mu nekkoon tam lamb waroon neex quoi te ni mu demee tam neex na suñu côté ndax ñoo daal. mais 18 tonnes avant lamb bi sas bi 18 tonnes ren. non 18 tonnes ndax ma ñun dañuy entraîné dañuy entraîné matin soir dañuy entraîné régulièrement normal dañuy entraîné duñu tapale si entraînement waaw te xam nga fii moom wax dëgg yàlla ku fi nekk bëgg jëriñ moom suñu borom mën na laa dimbale ndax fii liggéey rek moo fi am te diisul woon tam xam nga comme tey jii affaire yi soo nekkee xale gëm sa bopp di entraîné ba pare ñeme li ngay def affaire na bañ a ndax fulla ak fayda mais moom la ma ji mu jeexee dafa contesté mais premier a bi yow da nga daanu. non bu fekkoon dama daal xëy na pare su moom mun na xoolaat bu baax. waaw mu def retour xam nga. mu dem lu ko yoon may mu jël quoi comprendre ndax man moom loolu du ma si wax ndax arbitre bi moo ñu boole moo ñu tàqale moo ñu boolewaat moo ñu tàqalewaat moom bu fekkee dafa jàpp ndax maa daan rek après su ko neexee mun na def lu ko yoon may quoi waaw. léegi nag daan nga tuuti loo tuuti macha allah sant yàlla rek mu ni ku nekk moom maam soo nekkee si làmb moom da ngay ak xam nga bëri ak ñenn ñi wala nga rêve ak fi nga xamante ni fi la champion nekk man moom échange sama bët moo ko dëgg yàlla ko teg samay morom quoi mais du ma tudd tur ma làmb war mais xanaa am na a bëreel nag waaw am na ñu mais tudd wax la nekk ma fii laaj kii que ce man ku ma làmb booleel ma bëree moom làmb laa fi nekkal waaw tudduma kenn nag mais ñi nga xamante ne maam ñoom ñoo ma yor ku ma xool ne war naa mën a bëre mu nekk sama morom man du yàqoo si dangay bañ tudd mbër ñu ne non sax mu ndaw laaj na ma affaire non non non du question de loolu mais man maa amul habitude sama xam nga du sama habitude nit nag xam nga rek mooy loolu lu dul sa jikko rek na si fekk waaw te wax habitude di laaj mbër ku ma la am booleel muy sama morom dina am bëree da nga des parcelle da nga dem géej waay parcelle am na ñu fa nekk samay morom bëri nañ si làmb te samay morom ma ñu fekk la talfa musul mu ma la du ma fi laaj benn mbër wax dëgg yàlla du ma manqué de respect kenn tam. non non mën nga laaj du ma laaj kenn nag mais ku ma lamb boole damay bëri ak moom ndax lamb moo fi bàyyi quoi te lamb moo du ma laaj benn mbër du ma la ni kii laa soxla wala soxla wu ma kii mais ku ma lamb boole am naa ménagère am naa ku may waxal. Ah, ku ma lamb a mu bëri ak moom. Ah, kese. man tax naa tax laaj ma fi benn mbër. non neel pare naa wala a ma. tamit bàyyi ma fi benn mbër. man jox naa la téléphone déggoo lu ma la wax xanaa ku ma lam boole ak moom mais du ma la tuddal benn mbër naan la kii laa soxla wala soxla ma kii loolu moom du sax insi d'accord waaw waaw lay di sant di sant combat bu baax sant waa Casamance waa Guinée Bissau waaw Singba di sant bu baax sama Ndaw Seet Diagne maa ngi koy nuyu bu baax moom sama toosa waa Joojo di leen nuyu bu baax di nuyu waa Jilaas di nuyu waa Munde waa Baasu ak waa Baasa waa Caara maa leen nuyu waa Gambi nuyu wala nuyu waa Building dinaa maa ngi nuyu waa Gambi dinaa dinaa ñëw waa Building kay waaw Building moom xam nga rek moom sama grand la sama xarit nah, la sama lépp la ci combat bi ñëw non Bill moom kooku moom maanaam su ñëwul sax man sama xel dafa dal ndax kooku daf ñoo nekkal fu ne waaw sonal nañu fu ne waaw borom Serekunda ak Malick Niang ak Baar ak Laye Mbaye di leen nuyu baax sama grand ro maa ngi koy nuyu ak magam Mouhamed di sant waa Serekunda waa Mondial yëpp di leen sant bu baax waaw di bëgg waa Guinée nag <laughs> waaw di waa Casamance. ah li nga tax Guinée Bissau la jógee. <laughs> non li li ma yoroon Guinée Bissau kër <laughs>